vidéo Sadio maane bi ki ko filmé lum ci jublu maanaam moom c'est quoi la projet da koo filmé rien que pour salir dellu Sadio maane da koo filmé pour jël Sadio maane boole ko ak sénégalais yi wala vidéo amateur la wala da koo filmé daggali ku ci neex dugal ko ñun munuñoo comprendre man essayé naa dugg ci commentaire yi sax pour mieux comprendre principal problème bi mais maa ngi gis ñiy jaar gauche ñiy jaar droite ñi naan Sadio Mané war a contrôler naan Sadio Mané warul ko contrôler dafa war a jaar fi doomu Macky Sall di jaar ñi naan Sadio Mané moom lañu war a tuddee aéroport bi moom bi ci milieu eh, drapeau lu nekk ak lu mu mënta xew bu nekkee dañ ko war a contrôler Sadio Mané dafa war a jaar fi ni ngi di jaar ñu contrôler ko mais man am naa yaakaar que ne Sadio Mané ak grandeur am su ngeen koy filmer ti war ko diffuser ci réseau yi respecté leen image am ba ngeen filmer lu leer ba ñun waxkat yi bu ñu génnee ñu xàmmee bopp beeg bi fan la ñuy commencé beneen bi ci topp mooy bu nekk dañ ko war a contrôler Sadio man jàpp ma ne nit la koo xam ne danaan du ma jaar fi ngi ni jaar pour ñu contrôler man fooguma loolu jusqu'aux preuves du contraire xaw ma nag ni mu demee bu ñu amee ku ñu mën a leeral Thank you.